tey Matar. Mhm. jafe-jafe yooyu yëpp agent yi nekkee yéen ngeen toogee ko nga may wax ñenn ñi vingt cinq ans def nañ ko ci wàllu profession. Mhm. Euh, ñenn ñi nga xamante ni seen situation c'est dérisoire dégg na dayo parce que. Mhm. quoi qu'on puisse dire euh, tey agent de santé bi nga xamante ni agent de santé communautaire la. tey bu ñu nee PEV réussir na yéen la. parce que tey bu ñuy wax relais yi. Mm-hmm. boole leen ci biir. Mm-hmm. vaccination bi ak mm-hmm. yeneen ak yeneen yoo xamante ni mel na noonu. mais lan moom moo waral ba tey statut bii nii mënu leen ci jóge. mais mooy euh, li may wax léthargie gi Sénégal di doxee rek. parce que tu ne peux pas à chaque fois nit ki tey jii nii yow donc boo jëlee exemple ci ku bëgg a tabax kër. mais à chaque fois da ngay bëgg di parfaire di yokk naa yokk naa gën a ngandal néeg bi. naa jënd fauteuil yu bees naa def lii naa def lii mais la mu le pourquoi loolu au niveau de la santé ministère mënul xar tànk tubayam euh, jël ay directives jël benn euh, kii euh, boo xam ni benn benn yoon boo xam ne dina mën a ne ah chaque année dinaa def tout ba lii avancé ci biir santé mm-hmm. parce que tey les agents de santé communautaire ni nga ni ko sa waay di waxee sànq waxi prise en charge mais imagine toi koo xam ne fayoo ko même pas 40 000 te bu demee hôpital moom mooy faj boppam. amu leen prise en charge. mais kooku c'est grave parce que ñun tey jii nii bu ma jëlee exemple euh, hôpital bi nekk muy l'hôpital Roi Baudouin mm-hmm. mais avant muy passer niveau un centre de santé Roi Baudouin lañ doon wax. Mm-hmm. mais moment bi muy nekk centre de santé Roi Baudouin même problème yi avec les agents de santé. communautaire am les même problème ci lan nekkoon. xam nga lan moo nekkoon plafond bi. pour euh, bu naan par exemple kii nii bon c'est un fonctionnaire de hiérarchie A. waaw plafonné. waaw mille francs. yéen agent yi. moom moo nekkoon plafond bi. ki ci gën a kawe liñ koy fay. 27000 moi je euh, li may wax je parle sous contrôle. Mhm. et en connaissance de cause parce que je l'ai vécu. Mhm. mille francs. ba mu jógee ci état de centre de santé nag jàll ci état hôpital mhm. léegi le directeur d'hôpital si la ñëw ne moom désormais euh, képp ku fay agent de santé ne te considère plus comme agent de santé moom ay prestataire la amal affaire mhm. ku mu defal euh, ñaari prestation de service après defal la euh, CDD boo jógee ci CDD ñaari CDD après mu defal la CDI mhm. directeur yi nga xam ne ñoo fa ñoo fa relevanté kenn ku ci nekk aussi tamit ba nga ñëwee euh, xar nga sa tànk suba yi ci loolu. Mm-hmm. mais et jusqu'à présent temps ñi ngi am ay prestataires ba tey. Mm-hmm. tey jii nii ana ministère dans tout sax le pourquoi ministère war lu mën a jël ne ah comme day kii passé na niveau un désormais dinaa ko jëlal par exemple euh, chaque année trois personnes wala cinq personnes ma dugal ko biir fonction publique te ñoom am na mérite boobu. le pourquoi tey jii nii ñooñu nga xam ni am na léeg-léeg ay background yoo xam ni bu mu la ko fi waxee sax danga naan c'est pas possible mënul nekk da ngay gis koo xam ne par exemple am na master en sciences économie mm-hmm. je te parle mm-hmm. gis koo xam ne am na licence en anglais dañ leen di jël yóbbu leen au guichet ñuy jaay ay ticket di yo yoo ci yooyu la ñu nekk mm-hmm. tey jii kooku war nga ko mën a utiliser ci beneen domaine les écoles de formation ñi ngi fi nga signé te protocole d'accord ak ñoom boo xam ne tey jii ñoom bu seen i élèves pare yow mën nga leen jël en message yow nga jël say propre éléments yi nga xam ne c'est des agent de santé nga yóbbu leen foofu noonu ñoom ñu dem formé wu ji muy gañaa gaña mm-hmm. non seulement yow sa plateau médical dina gën a yéeg parce que euh, théorie moom laa doon wax sax sànq ak docteur théorie boo ko allié ak pratique moo gënati mm-hmm. mais tey jii agent de santé communautaire yi fi mu ëppalee théoriciens yi comme euh, aussi bien que muy docteur ak muy lépp euh, sur le plan pratique la ils ont pratiqué directement. Mm-hmm. mais ci pratique boobu noonu duñ ci taxaw tuuti que sénégalais yu ci bari familiarité boobu noonu. Mm-hmm. ñi ngi koy ŋàññi ci agent de santé communautaire yi AS euh, ASC yi. Mm-hmm. di wax ni da nga ciy gis koo xamante ni day bale ba ci yàgg mu fréquenter maternité. gis ci koo xamante ni day bale ba ci yàgg mu ni dafay piqûre. c'est-à-dire jafe-jafe yooyu yëpp am de temps en temps ñu koy imputer au médecin mhm. wala ñu koy imputer tey ñeneen ñoo xamante ni xëy na ñi ngeeg seen euh, jàng ba nga xamante ni taxaw na ak ki nekk ci formation sur le mhm. tas mhm. tey jii nii boo jëlee nit ki nga xam ne euh, bale na pendant un an nga jékki sa dugal ko ci benn salle moo xam salle de pansement la moo xam lu mu doon muy nettoyer yow sa bopp nga jël ko di ko jàngal nga jàngal ko ba pratique daanaka bi ngay def yëpp moom ci boppam da koy def parce que on parle pas des hôpitaux ah. une fois encore on parle des districts sanitaires ah. centre de santé poste de santé yi waaw mais est-ce que laajul tamit ba tey xam nga loolu moom doo ko gis au niveau des hôpitaux waaw mais dama ni est-ce foofu noonu ba tey it mhm. enjeu bi moom mooy dundu mhm. doomu aadama waaw est-ce que dundu doomu aadama bi du niveau yaa ngi dégg pyramidal nee nañu yaa ngi dégg case de santé poste de santé. Mhm. centre de santé. Mhm. ñëw yaa ngi dégg niveau central. Mhm. est-ce que niveau district la rek ba tax ñu ni dundu doomu aadama bi moom ak waaye di lañ ko war a jàppe non man man xam nga ba tey euh, mënuma ko jàppee waaye di xam nga lu tax parce que tey gis nga conscience professionnelle. bon peut-être c'est trop dire professionnel. mais conscience bi nga xam ne moom la euh, les agents de santé yi am. ci wàllu humanisme ci wàll yërmande. mais dans la pratique laa moom laa fa laa jëm si. ci wàllu humanisme ci wàllu yërmande. Mhm. lépp loo xam ne mënuñu ko duñ ko def. lépp luñ mënul duñ ko def ko def. mais pourtant bari na parce que xam na lu leen siy fekk xam na lu leen siy fekk. lépp lu nu mënul duñ ko def. Mhm. loolu moom c'est sûr. Mhm. parce que réprimande bi nga xam ne moom moo ciy am c'est automatique. tey jii nii fi mu nekk nii da nga mës a gis benn agent santé wala kii boo xam ne con agent santé communautaire bu nu convoqué tribunal parce que y' a un problème bu surgir ci au niveau de l'hôpital mhm. ñu couvrir ko ci. Mhm. amul y' a que les professionnels ñoom dañuy def ak ñoom loolu. professionnels yi toog waaw parce que parce que yenn erreurs yii nii ñoom duñ fa am accès ba di ko def. Mhm. et une fois encore on parle des au niveau des districts. Mm-hmm. parce que hôpitaux am c'est c'est tellement bien canalisé ba nga xam ni am na yenn détails yoo xam ni tu ne peux mm-hmm. tey jii boo demee dans les hôpitaux doo fa gis benn infirmier bu toog naan mi ngi consulter. <laughs> mais demal dans les postes de santé ñooy consulter. nga dem dans les santé ñooy consulter. waaw xam nga <laughs> ñoom. Hmm? kenn ku ci nekk da ngay am délégation de pouvoir. Hmm. mu lay may lenn li. mi ngi noonu effectivement loolu daf fekk ñi am nañu ni. bari na ci yenn yoo xamante ni ñu ngi koy gis comme ay dégâts. Mhm. donc loolu euh, du lu ñàkk ndax la presse mi ngi koy relater mais loolu bu ñu ko waxee rek dañu bëgg doon xaar ci yow it ñu jàpp ni. Mhm. Euh, agent de santé communautaire bi ñuy wax. Mhm. buñ ko waxee dafa war a xam luy sañ-sañam ak fan la war a yem. fan la war a yem mu doon loo xamante ni ci encadrement bu leer la tegu. mais il n'est pas dit que ni mi ngi ci niveau district rek am na ci yenn sañ-sañ yoo xamante ni wala jàngal ko sur le tas war na tax. yenn nii mu mën ko def ndaxte tey ki nga xamante ni dafa ñëw ci poste bi bu fa fekkoon benn lal mhm. am yaa ngi dégg jafe-jafe docteur ñu ngi ci mhm. wàllu spécialisation diabète mhm. problème mu suukar wala yeneen ak yeneen amaana am na lu ndaw loo xamante nii mën nañ ko ñàkk bañ a defal ba bakkanam mën na ci far donc boo gisee ñu teg pyramide boobu ba teg système de référence contre référence yi am xam nañu kenn ku ci nekk la mu ma nekk la nga xamante ni moom la jéggi tayoo def alors ñi ngi woon ci statut yi nga xamante ni tey DES yi moom la ñu amee ba tey mel na ni loolu bokk na ci ay point ak jafe-jafe. merci euh, jo euh, di la gërëmaat encore une fois Moussa pour euh, laaj bu am solo boobu parce que soo gisee depuis 2001 ba tey. Mhm. commerce mënul fexe ba am. bay continue di revendiquer vingt ans après son existence yenn point yi nga xamante ne Sénégal waroon na ko weesu bu yàgg mhm. notamment la question du statut mhm. xam nga hôpital soo laajee dara xam nga lan la administration hôpital di tontu. Mhm. yéen université moo leen fi yebal donc da ngeen di jàng kuy jàng kenn du ko fay. Mhm. xoolal tontu bu naqari boobu. te ñiy dagg te ki la koy wax. toog administration deful jamais bac plus 5. wala mën naa waat ne deful bac plus 8 te man mii boo nekkee première année spécialisation déjà sa bac plus 9 la. te kook boo amee mbokkam yéen lay sollicité. bu feebaree moom ci boppam si service bi lay ñëw di ñaan euh, nga jàppale ko nga faj ko am na ci yow confiance en terme de compétence